sànq yaa wax ci conseil interministériel bi ñu éducation mm-hmm. gis nga li wax ni daf fondamental gis nga ñun Sénégal ni ñuy mm-hmm. bañee mm-hmm. mbirum góor jigéen dama ne bu ko bu ñu bu ñu ne rek ce n'est pas un sujet important ce n'est pas important ci importance bi ko Occident di jox waaye pour ñakk suñu doom yi laa wax c'est important ñu jiitu leen ci eh, ñu xam ni effectivement parce dafa nang wax dëgguma la li nga wax noonu dafa important na dafa fekk suñu rek mu ne xaaral ma si ci suñu smartphone yaa ngi fàttaliku daaw di jëkk xawma ci covid bi la woon mhm. que ni ci agenda bi ñuy wax gaa ñi lëlu woon nañ ca mbuur syndicalistes yi ñoo génn dénoncé ko parce que li ñu doon bëggoon mooy mhm. fexe ba mbir mi ñu dugal ko ci école yi comme ni ñu koy gisee la loi Chiappa en France juróon fi coow mhm. ba ñu jotoon ko voté nga xamante ni dem na ba benn moment boo xamante ni sax dañu naan xale bi su la neexee daal ni nga ni nga ni nga ñëwee bu la neexee boo ko bëggee soppeek yu mel noonu am nga di mën nga am droit ci soppiloo c'est-à-dire xam nga loolu bu demee ba yegg ci benn niveau bi. Mhm. te ñun xam nañ léegi àdduna nekkatul. ñu nekkul ci benn vase clos mais loolu responsabilité responsabilité parentale la. merci xam nga loolu euh, euh, nekk loo xam ne état moo lay fekk. sa kër naan laan sa doom bi dee ko ne bul seetaan métier bi loolu sa biir kër la yaa ko gérer. mais nag état daf ci am responsabilité ci benn wàll xam mooy lan. waaw mhm. Mhm. gis nga Ousmane Sonko barki Dembo Ndiaye. su lay wax naan la mënu leen ñu imposer seen agenda. maanaam di ñu ko xuppee li ngeen ñuy jox en terme de financement yu mel noonu parce que il a compris que ni effectivement ñoo ñuy wooyee agenda LGBT derrière li ñuy xuppee yenn réew yi pour ñu jëmmal agenda bi mooy koppar yi ñu leen di jox. financement yi donc boo gisee sax même ñoo amoon difficulté que loi bi selon ñu ko doon porter. Mhm. pour ñu euh, jëmal ko à l'Assemblée nationale mooy yaa ngi doon dégg jamono jooju waa ànd sàmm jikko yi naan diw. diw diw bokk na ci xam ñoo ko bloqué ba jàll à l'Assemblée nationale est-ce que mm-hmm. bokkuñ ci ñuy dooleel agenda bi mm. ñu doon wax ni kon école bi est-ce que bëgguñu cee jox cër pour tàmbale ko comme ni ñu koy gisee en France moo tax ma ne la yooyu yëpp dafay baax ñu xam ko muy ci kër yi comme ni nga ko waxee parents yi mm-hmm. xam ko ñu am ay position avant-gardiste mm-hmm. gis nga bu ñu ko deful mooy dañ ci ñàkk xam suñu doom ñàkk caa xam ba këruñ ci dugg mu doon musiba ci ñoom xam nga tey ku soo jëlee Ababacar Mbuub moom laay cité xoolal Ababacar Mbour ak posture am fi mu bàyyee ko. Mhm. su mu nee géeju trop ci sur cette question. Mhm. parce que xam na importance su xam ko gindi ci nit ñi pour ñu taxaw xam position bi def pour xeex ko. moo tax ma ne la mu ngi dépendre ci angle bi ñu ko jëlee yow mi wax ni amul solo nañu ko bàyyi. waruñu na solo ah, ah. ci kaw nan ah, la ñuy def ba gën wax la maa ngi am na solo yow taxaw may wax. dama lay wax ne la yow taxaw may wax. à travers yow wax la xam nga fan laay waxee. waxuma ne waxuñu cee wax waxuñu cee débat xam lan laa wax. waxtaan bi ñu bëgg imposer ba saa bu ñu xëyee ñun suñu plateau bi au ñu wax lu jëmal askan bi kanam ñu naan kasu beleeg Ousmane Sonko neen dina ko daganal nag ñi naan toléré ñi naan euh, du toléré ki naan jàngool bi mhm. man foofu laay waxee jënga li nga wax nii mhm. dañ ko war a xeex ci biir kër gi état jàppale ñu ci mais kantaan toog def ko plateau ci rajo yi ñenn ñu naa fekk yu toog naan di leen lii la wax ñeneen ñu toogee fee naan lii la wax man mhm. foofu laa ne bu ñu tombee ci seen na yeneen priorité kantaa waxtaan ci nag moom dëkk lépp la ñuy waxtaane mhm. dafa am yoo xam yoo xam ne soo koy waxtaanee askan ko yëg te donte yaa ngi ciy waxtaan yaa ngi ciy def jéego mhm. mais li ma lay wax mooy ni ñu ko bëgg imposer ñu toog ci plateau bi tey Mélenchon ñibbi na ma nga def leneen Ousmane Sonko ngi fee ca conseil interministériel bi ah, a def leneen loo xam daf fi wax na ko nangu na ko loolu laa bëgg wax ñu wax ci tëj ko casus mhm. belli boobu ñu jël ko tegee ko beneen ko te xool lu ñu jëmale kanam. d'accord surtout nañoo joxe seen xalaat ak seen gis-gis bu ñu paree ñu jàll. wax leneen mais li am solo non non non plateau bi waxoo waxoo ak ñun. comme man ni ma ñàkk ci li ma wax nii mais dama bëgg wax mhm. ni. pour vraiment ñu waaw merci Nabou et que tout le monde en parle. voilà chaque jour parce que. wala <laughs> euh, boobu ba léegi UCAD bi mu gi bëgg a yàgg. loolu passé na ñu ngi ci yeneen. waaw hmm? ah, moo ni toll moom saa bu génnee yëngal dëkk bi. moom lu mu wax wax dëgg yàlla ni ñi dañ ko xam naa daal lu mu laal yàlla teg ci. waaw moo ni toll hmm. moo tax nañ bàyyee jox lu ñu liggéey. waxuma la moo tax nañ bàyyee pàcc boobu xam ni am solo xeex ko. Hmm. dafa tàmbale ku ci nekk ca fa nga ko mënee. ah nga nga góorgóorlu ci mooy njaboot gi ñu gindeeku ci. nga xam te ne li mu jaaral sàmba ngir mu implanté ko imposer ko. c'est ça mu jaral demba ngir ne mhm. ko doo ko fi defe loolu nag day fekk ñu outillé. oui ndaw ñu outillé suñu tout tànk yi ba ñu xam phénomène bii mbon ngi mu mbon ak lan lan mooy njëriñal xeex ko. Mhm. comme ni ko ñoom Ababacar mbuub di defee. te te te taalibe boobu ñu doon ba yaram bi def ci ci ginnaaw yaa ngi koy gis fan yi ba ñoom euh, maam Diarra Fam génnee communiqué ak yooyu maam Matar Gueye war na ci génn wax ci. Hmm. sabar gi ma lay wax noonu sabar bu rëy la. mu ngi ci tiktok bi bi di fekk ba ci suuf jonkan di tey xam moom li muy défendre yàgg ko def waaw mën nañ ko bàyyi ci logique mais am na aussi y' a plus urgent li nga wax damay dama lay rejoindre bu baax gis nga xale yi am na lu ñu jël fan yi le motif ah. <laughs> xale yaa ngi ci bu feet amee ci appartement meublé yaa ngi def loo xamante ne ci TikTok bii jar na wax hmm. y a tellement de cas yoo xamante ne wax dëgg yàlla war nañ ci mën a wax te dégradation des mœurs fa nga koy gën a mën a gisee euh, que peut-être ñuy attardé wu ci yenn yi je suis d'accord sur le fait que Pape Ousmane ne war nañ ciy wax mm-hmm. pour mën a yee suñu njaboot ki nga xamante ne mm-hmm. léeg-léeg xamuñu dañuy saan ay ay dessin animé yooyu yëpp tubaab bi fexe ba dugal ko ci pour xamal leen luy mbir góor jigéen donc ñun aussi suñu rôle la ñuy wax ak ñoom ñoom ñu xam ne loolu ñu leen bëgg a euh, def ci seen bopp du dëgg te ñun baaxoowuñu ko te baaxul voilà amul benn diine boo xamante ne euh, nangu na ko alors ñun nanguwuñu ko mais tamit y a plus urgent comme l'a dit Ngoné am na yeneen cas yoo xam ne wax dëgg yàlla mën na yàq ndaw ñi hmm. peut-être ba yóbbu leen ci lii ñuy bañ a tudd ah. bu ñuy xool rek chaque jour liy nekk tok ñaata nit góor ngay gis ñu nekk ay góor pire di sànni seen loxoog nangam nekk ci réseaux sociaux yi lëmb nit ñi di ko partager all day all time te kenn du ci wax alors du toléré la wala du toléré loolu. non loolu kay romb na tolérance loolu toléré la man li ma gis ci TikTok man wàcce ci suuf fii nii tey exemple Bachir doon génn gis ñaari góor yu ne léegi def acte contre ci buntu kër gi xanaa man muy jigéen sax boobaa. nee kay nga génn ci mbedd bi rek léegi léegi nga gis ko man man bu ma la rombee nga dox dox bu nooy naan dëgëral ko xale góor yaa ngi sa ginnaaw. na góore de <laughs> te te te kii daf xoolal yow affaire yooyu ngay dégg noonu. doo ko dégg ay côté Gueule Tapée ak yooyu. Mhm. foofu boo yëpp a dëgg laaj ko si daat. Mhm. foofu ba fa nekkee di biti loxo di nooyoon ni sax la. <laughs> yow. mu ne ko damay oh, woo waa Kaolack <laughs> waa Kaolack jaruñu woo wax dëgg yàlla problème day am à tout moment donc ni ñuy dëgëral seen i <laughs> ndox ak seen i wax moo gën ci réew mi <laughs> te yaakaar ni kii toléré dañ dañ leen di nax de li ñu leen bëgg a gëmloo amul dëgëral leen seen wax yi ak seen kii yi dox yi bu ngeen di dox di ko dëgëral dëgg di njaab bu ngeen di dox loolu mooy dëgg ay ci ñu daal di jàll ci benn point bi nga xam ne moom la ñuy euh, waxtaanee euh, le premier ministre le PM ba tey mm. euh, Pape yëkkati na euh, kàddoom jëmale ko ci système de rémunération dans la fonction publique moom daal euh, daanaka nee na il faut nga am fit dëgg dëgg dëgg pour ñu euh, laal question bi li rémunération bi au niveau de la fonction publique ngir ñu mën ko teg ci yoon hmm. muy euh, point bu central te am solo. Mhm. ñu ci li leen gën a. <laughs> nu ngeen ko bëggee noonu laa koy defee. exactement non point bu central la. <laughs> bu mu laal boo xamante ni. Mhm. Euh, dafay. Euh,